que oustaz jàppul ni feebar bi rax na maraboutage ndax ñi mu doon déranger. senegal ah, Sénégal dañuy wax loolu bëri na. non xam nga man benn feebar laa yoroon. sama loxo bi moo daan tourner. di tourner mënuma ko téye. su ma daan def nii sax su ma defee nii. pour génn duma ko yëg. loolu laa faji woon looloo ma sonnaloon waaw ñi ñi nga xam ne maraboutage lañ def suñ ko mënee kay nañ ma rey alaaji Malick nee na man laay yaqi nafsahu durra fa kay fa yusib nee na koo gis mu am na feebar ku mënta fegal sa bopp feebar noo koy tegee nit ah, ah, ah. ku mënta fegal sa bopp feebar noo koy tegee nit c'est-à-dire dafay réew moo xam ne bëggu moo sax nga dugg foofu waaye gannaaw dugg nga fi rek ma wax la ko dafay réew moo xam ne ñoom lu la dal ñu ne la nangam la. Hmm. ak lu la mën a dal. ñu ne baar diw ko laal mii diw mooy lan yàllaa ngi fi yàlla tuddul ne danga feebar ku la mën a feebar loo yàlla tudd ne danga feebar ku la mën a wérloo hmm. lépp loxo yàlla ne ci yàlla ngay wéeru hmm. wéer ko say mhm. waaye man nee naa la bu ma toogoon fii senegal dof naa bu yàgg sama loxo bii su ma fi toogoon dof naa ca dof yu jëkk yi ma yenn samay sagar di panang panang ngeen di dajeeg man na ndeysaan waaw parce que dañ lay wax lu ne mhm. baadu nangam baadu nangam baadu nangam lu ne lañ lay wax sama loxo bii ni mu daan def nii nii la daan def nii ngeen xam ngeen ci dara dama ko daan nëbb mhm. mu toog a toog ne pëccët dem naa ba sama jabar ma ñëw ñuy waxtaan mu ni ma sa loxo bi am na lu ci ne ma ne ko lu ci ne mu ma sa loxo daraa ngi ci parce que bi ngay waxtaan seen diini eh, ci ci grand cœur bi sa loxo bi am na lu ci ne boo ko defee nii buy roccee ko bi génn doo ko tey ma ne ko fekk ma ne ko wax nga dëgg hmm. mënuma ci fay fa mënuma ko faj mais bi ma demee bitim réew bi ma président yóbboo bitim réew ba ma dem ba ci tubaab yi tubaab yi yooyu yoo yor sama gàllaaj waaye du ñii di wax marabutaas ku yaakaar ne marabutaas la nag ba nga wut si ma bul yegg si doo ma faj mhm. mukk doo ma faj mukk parce que xam naa li xew ci réew xam naa ne xew ci réew mi toll naa ay temps du ma wax du maa ngi def six émission tafsir def deux deux seen diine ñoo di waxtaan ak yéen ku man loolu na ko def ah, macha a yokk ku man loolu na ko def cest à affaire yi du loolu nit ñi ñoo mel noonu rek ñoo lay wax wax yooyu bu ko defee nga gëm ko nga gis ko génnee ci el ba nag ne waaw man mën naa ko seek comme dégg man avant may dem jàng naa ba pare mhm. doog a dem ba ma demee ba ba yegg laa xam ne dañuy sen ma ñibbi siwaat nee naa la sama xaaj danañ ma ko jox nii wala naa fii lay tegee fii fii sama loxo bii loxo bii danañ ci teg sama xaalis te duma leen ko laaj duma leen wax dara danañ ko indi teg ko sama loxo man maa la ko wax parce que alalu jàmbur la alal alal lu lew lu lew du demee noonu lu lew du demee noonu lu lewul kay la ko indi ci yow moo ko yóbbu ci keneen rek waaye lu lew lu demee noonu affaire ma bu taas eh, dañ macha allah aca bëgg Bamba dernière question su fekkee am keneen ko am na beneen laaj goo xam ni it wax fa dëgg yàlla indi woon na coow lu rëy rëy ci diggante boroom xam-xam yi te à chaque instant laaj bu indee problème ci diggante boroom xam-xam yi borom xam-xam moo ko indi kii indi problème bi wala kii indi polémique bi boroom xam-xam gu wér a wér wér la te it macha allah cheikhu la kilifa la muy euh, xëy na mën nañ bañ a tudd tur waaye ñëw ci wax ji mu wax rek ni euh, yonent def na lu ñuy tuddee mooy boroom xam-xam yi ni yonent maasum la du mooy am ñu ni déedéet yonent boobu bi muy def loolu nekkul woon mooy ci jamono yonent bi la soogay nekk mooy tey lan mooy àttee ci loolu. ci wax lu ci wax. su ngeen amee leneen lu ngeen laaj ngeen laaj. léegi tey bu ñu ñëwaatee bu ñu ñëwaatee tamit ci euh, àtte goo xam ne tamit ci diine muy sox benn soxna soxna Ndate Cissé dem ci réewu Dubaï jël concours. alquran macha allah réew mi ñëpp sagoo ko waaye am keneen ku ni tamit xanaa baatu jigéen dafa nekkatul awra wala. ah bu nekkatul awra nag kon jigéen ñi woy nag jigéen ñi woy soraanoo. Mhm. ak ñi woy feneen. Mm. xanaa xanaa xanaa xoolal gis nga gis nga euh, euh, mbir mi soo ko seetee ba mu yàgg daf lay jaaxal. ki jël di soxna Ndati Sisi jël pee ca fa mu demoon ca Dubaay mm-hmm. baax na. Mm-hmm. bu bu loolu la weesoo nag ñu seet nag baatu jigéen mm-hmm. awra la wala awra mm-hmm. loolu ñu ko seet waaye moom ñi mu doon jàngal alxuraan mm-hmm. xëy na defuñ ko awra ndax alxuraan ji mu doon def concours ba gañe ko loola ndam la ndam la ci lislaam ak lu mën a xew rek ndam la bu baatu jigéen di awra ndam la bu baatu jigéen dul awra ndam la parce que moom bokkul ak yenn jigéen ñi. jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp nag. ak jigéen ñi sol lu bon nag. Mm-hmm. ah duñ wax ci ñu mm-hmm. dañuy boole ñëpp wax leen baa ñu boole ñëpp bàyyi leen rek. Mm-hmm. nañ boole ñëpp wax baa ñu boole ñëpp bàyyi. waaye kii dem ba Dubaï. mu gagné fa concours alxuraan. ñëw ba fii ñu bëgg cee tegaat neen wax amul njëriñ. bi muy dem Dubaï bàyyi na fi jigéen ñu wuyu. ñu bon ñu man lu bon. bi mu ñëwee fekkaat na fi jigéen ñu wuyu ñu bon ci waxuñu leen dara seetal plateau yi ngay seetaan plateau yi ngay seetaan yi xool ko jigéen ji lu la neex ngay sol lu la neex ngay sol tey sax sol gi dañ koy dañ koy concours sol lu bon sa lii génn defe nga ne sol lu lu xotteeku nii sa pooj bi génn bu fii mm-hmm. lii mooy lan xam na ko <laughs> loolu mooy lan parce que loolu mm-hmm. bokku ci lu jub mm-hmm. nit buy def buy dal da ngay boole dal ñi waaye bul nekk seet ku nekk ci lu baax mm-hmm. ba góor góorlu ci ba am ca ndam nga xas ko xasal ki ki gën a nekk ci lu bon nag ñu boole leen ñoom ñaar xanaa xas wi te kii concours la doon def concours demul pour wanewu demul pour pour lenn dafa dem pour gagner alquran ñëw dañu ne ko ñëw ne jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf waaw ku ko bëgg def na eh, baatu baatu baatu jigéen awra la sa affaire la waaw ku ko waaye daal moom jaajëf waaw def na li mu war a def mm-hmm. gañe na ko ñibbisi na alhamdulilahi rabbil waaw buñ ko gañe woon nag bu bu bu gañee noonu nag doo résultat bi kon doo dégg kenn wax baatu jigéen waaye gañee senegal dafa bëri ñu añaan fii dafa bëri du añaan rek ngay wax dafay bëri ñoo xam ne mënuñu gis lu baax ba wax ko suñ la ree ñu ngi lay ñu ngi lay nëbbal leen Sénégal noonu la mais tey bu fekkoon dafa dem échec doo dégg mukk baatu jigéen awra waaye nag dafa ñëw ndam ndam loolu nañ ko bàyyi mu bànneexu ko su paree ñu woo ko ne ko baatu jigéen awra la waaw su paree ñu woo ko ba mu ñëw ñu ko ah, soxna si baatu jigéen awra la am nga ndam nag lu rëy waaye baatu jigéen awra